xam nga ndeysaan géwël yi laabaan daa am fu ñuy yem ndax tey ana yow ana man wala ma seq ak sa yaay kóllëre xam nga du ma sa sër sër koy gis bàjjan ak yaay ak borom bi ñu bari dañuy réere mbir nag ni sërul laabaan pour ñoom danga koy tas nii tàllal ko ni sër baa ngi déedéet sër sa jëkkër moo koy sa yaay bi lay yëkkati kooku moo am droit gis sa sër sa ci kaw suuf du sër bu ñuy tàllal mais ndaw fabriqué ak ndaw original géwél mi ngi koy xam ci kanamu xale bi. Eh, eh, eh, koy wax ak yow. <laughs> ci kanam ci kanam rek ci kanamu xale bu jigéen bi ngay gis nga fu dara musul jaar bu fa dara jaaree. Mhm. boo ne jàkk kanamu xale bu jigéen bi mhm. di nga xam ne kii tey daj na lu mitti mhm. gis nga tëdd moom ngeen ma fekk sànq ma di ko live mais góor yi léegi gis naa ñuy dugal ci bopp xale yi jigéen loo xamante ni buñ ko dee utiliser ñoom ñu bari dañ sànq seen bopp. ay ndaw waru tax nga takk jigéen. mais maman balaa ngay ñëw foofu li nga ne xale bu jigéen bu tëdd boo ko xoolee rek di ko xam nan nga koy xamee. kanam gi kanam gi day changé kanam gi bëti ngay xool jàkk day nekk ci ndong li. Hmm. kanam gi day dellu. dëndam bi jeex tàkk. Hmm. bëti sew ruuj. te dafi gën a miti te du original nag laa la wax potu meew boo teg nii jël paaka dóor mu dugg te da ko gën a miti ah koy waxal moo tax góor daaw la jël tey tey yegg caw tey tay te ko góor kaal yi gën a sonn ah ndax sexe sam bépp day dagg waxoon naa ko kon mën nañu xamee ko def ndaw fabriqué ak ndaw original bokkuñu ndaw gu la tëdd léegi nga jof belli belli mel na la saf man mm-hmm. ngaa man nga cee tëdd de sa kanam xaw a jeex ndax ñaaw nga sa bopp nekkaat xale wala nga jël nga loo xam moo lay def loo xale waaye góor gu tàmm xam jigéen ba tiim jigéen jooju dina xam ne lii li fi génn du ndaw parce que loolu nàcc la lay def boobu ñu def noonu pour delloo nga nekk xale dalay nàcc loo mais du la andiloo ndaw te nàcc ak ndaw du mu benn ndaw comme ndoxum guro guro goo yëy ba mu mokk nga buusu ndox mi xonkul wax naa ko ci benn site dafa rose xonkul yoru couleur ko deret moog deret dañoo séparé wu bu deret di ñëwee da koy wër mu ne ci digg bi doon lu nga xam yow da nga naan moo kon lii mooy affaire da koy sax xeeb waaye loolu mooy valeur bi moo tax nag nañu jox nopp mag ñi xale jigéen ñi sëyeegul te dese seen ndaw nañ ko jox mag ñi te buñ ko jox xale góor yi yi génération bu bees naan la ay ndaw yooyu doxut yaa ngi dégg teewul ma takk jabar teewul nga takk jabar taxul tamit nga fase jabar ñàkk nga ndaw ma dama lay fase déedéet mais nañ ci gën a encouragé sunu doom yi ñu gën a wodd ndax mooy grade bi gën a fort ci jigéen ku ko am am nga lépp dina tax góor fonk jigéen dina tax góor respecté jigéen dina tax jigéen sëy ci kër ba bejjaa fa doo fa mës a dégg lu coow li bari bari bari bari am na fu ñu yam kenn du dépassé loo reew réew réew loo sikk sikk sikk sikk sa jëkkër bu waxee am na fu mu yam mais jeeg bu tëdd ci kër te amul ndaw da yomba xas surtout sa jëkkër seeni wax du xóot de foo demoon nga ni waaye yow doo ma may sama jaam kon nañuy gën a góorgóorlu ndaw lu am valeur ci jigéen. dégg nañ ko léegi nag ku sumbul moomu bi kooku tëddee ni ko lii ndawu fabriqué la xale bi soo ko xoolee ci série bi loolu yàq la parce que loolu ñàkkul cib jànq gis nga jànq wax ju ñaaw da koy may da koy da koy yokk jom mm-hmm. ñun la ñu gënoon a sawee ci suñuy génération da nga naan romb dégg meer na la kii jeex la tàkk. soo xoolee dënnam bi ni mu wàccee nga xam ne jeex na soo xoolee taata mi ni mu bàyyee nga xam ne jeex na léegi na jeex na jeex na googu sa yaay fekk la nga tëdd mu ne la taarubxat ni la man fu ma romb gàcce saamu gàcce bu yaboo ma tonni cab saam yóbbu xam nga ne yow jeex nga sa kanam gu ñeme géeg sa bëti te fekk xamoo ci tus ban la tëddee yàgg na léegi yooyu ñu lay xas di la ko moo la yokk jom nga sa bopp mais tey xale tey ku wax tey am am na moo bu seen yaay di ñoom leen di jaral ñu joxe seen bopp ni yaa ma ci lii moo tax ma dem venger wu ci lii am na sa yaay ne la jeex nga tàkk nga ko ah, kon jeex naa tàkk dinaa la jaral nga téye meer moom dem daf fekk yaa ngi yàq loolu moo la war a téye pour nga am jom ne dañ daan jànk romb góor mu nopp oto noboo ko mu dem ci gaañ na mi copain mi toogandoon ne la kii jaar naa ci kawam bu yàgg kii jàpp yóbbu la booy bii fu ne yóbbu naa ko fa fekk araam musoo koo teg loxo mais daf lay bëgg a sa der pour ñeneen ci des découragé wu loolu nag su la dalee cib koñ danga daan yokk jom nga toog fi nga toog téye sa bopp ba tëdd jot sabari yi ni ter nga siggi soo paree dangay ngay doxee nu mu la neexee boo ko tënkee ci diina ji nag duñ fa am doole parce que nanguwuñu ko mais ñu aada gi dañ koy dund te moo fi ne na xale yi gën a góorgóorlu te bàyyi ñu leen daxe nii naan boo amee ndaw ma takk la boo amul ndaw ma takk la góor a ko jëlee ci yow góor a ko soxlawaat ci yow kon teel. ci biir sabar yooyu nga ñëw nga nga ñëw léegi fa laa bëgg a ñëw parce que ñu ngi ne boo amul ndaw am na tëgg bu sabar bi di tëgg. ñi xam dëgg-dëgg dañuy xam ne kii amul ndaw am na nu muy demee sax yat bi day damm. day diis est-ce que loolu réellement am na. tëgg ngay diis boo dóoree nii tar xam nga géwal tëgg mu bari su koy tëgg balaa muy commencé tëgg lépp ay saagal ak léemu. sabar gu ñuy tëgg. dinañ tëgg lu yàgg moo tax gis ko tëgg commencé rek nga jóg fecc. waragoo fecc parce que paree guñu commencé guñoo tëgg tëgg kaddu sabar yi la gën xam lii. Mm-hmm. bu ñuy tëgg ñoom dinañ tëgg lu diir bu yàgg lu mat 30 minutes yoo xam ña ngay léemu ña ngay saaga. léegi na yow doo comprendre nga jóg di fecc léegi mooy jëm ci laabaan bu ne ter ndënd bi da ngay dégg day fort moo tax nit daal da tëgg de fële inte onze nga nekk inte cinq gi ñu tëgg ndënd nga dégg ko parce que day fort ba pare géwél bi koy tëgg sax dina sentir ni man lii may tëgg neex na tarkala ndaw piir xale bi ndax da nga ci ànd ak boo xam ne nga bég mais bu dul loolu ndënd mi day diis day toog sax ni nga xam ne amoo ndaw di nga bëri kersa de man takk jàkk man fi doon nii ëmbal ma ma am doom wasin moo ma gën a dem ba yaakaar ndaw ci biir néeg dem ñu fekk la kóor ni la pëkk fekk la fa nga nuyu day décourager le góor te day yàq sa diggante ak góor wala bu dee dal na la ci beneen anam ndax yàlla moo xam balaa ngay dugg ak sa jëkkër te mosoo dund ak moom lu ñàkk fayda loolu comme yow Omar mi ngi lay doxaan xam nga ne yow nekkatoo ak sa ndaw carrément Omar mosul xam yow nan nga mel kon yow bu la Omar di doxaan ba ci loolu ba takk des si toogal wax ak moom balaa ngay takk nee ko Omar kat lii damaa daloon fiol bu ma dab la wala erreur jeunesse bu ma dab toppoon sama bakkan nangam ki nàngam nii nag laa mel du ma jànk mm-hmm. soo ma ci bëggee ñu sëy soo ma ci bëggul tamit noonu mm-hmm. te maa ngi lay ñaan yàlla di bu ko def arme di ko xeexeek man su dee bëgg nga ma ci ñu sëy te nga suturaal ma te yàlla tax ndax taxul teewul góor yor jabar mais tax na góor bàyyi jabar ndax lay tax mu bàyyi ko du ñàkkum ndaw ga tas yaakaar bi nga def te musuloo xam mhm. te dëgg yow ci guddi gi gis la yow taarkaal la nga nga romb autour bayaas di dem dina xam ne fii moroomu góor a ma fi jaaroon fiiraan googu mooy ne ci bopp bi moo tax lu mu a doon nañ ko partagé ko balaa dara di xew bu moo ko jël ci yow moom dafa tara nekk di lijjanti ndaw te lu garaaw laa lay wax mhm. taaw bu jigéen nag ma dégg bu baax te gis nga lii na ko xale jigéen yi jël gis nga góor jël ci yow sa ndaw mhm. doo dégg mukkum imposé sëy bi ci ay tëdd na la bàjjal ñëw yëkkati ak na la yaay ñëw yëkkati jamais de la vie ay jël naa mbooja mii xam na ni man ba ni ngoro ba nag moom tarkal la ñun ñaar ñi ngi sëy yaa ngi dégg ba ñuy ngoro ma nag oh Omar li il faut ñu dagg ko waay mbaa du yàq dara maa ngi lay wax lu danger foofu góor bi nga xamante ni moom moo jël ci yow sa ndaw doo dégg mukk mu takk la toog naan bàjjeni kaa leen kaa leen jël ko mu tëdd déedéet foo mën di jaar dina bële fekkaay ba kenn du comprendre. waaw moo naan kaa ñu dem. eh doo comprendre ko moo tax ñu ne la dañuy dem lim demeel ànd ak yow dem boobu jël nañ ko bu yàgg mais góor a nan takk nan la. mais jël nañ ko bu yàgg soo demee nag lim demeel boobu mooy ndax saay sama jabar la affaire de sérieux yëpp intéressé wu leen góor ñu dofuñu de dofuñu de mais bu leen leeree que ni tàlkaale li ñu ko ci yow mille sens la pour ñu défendre la wala suñu la défendre tam seen coow ak mbow du yàgg du bari te à fois seen bët bii mu ngi ci yow parce que ay gentleman la xam nañ li xew pour ñoom fu seen moroom bu góor jaar en tout moment kenn mën na faa jaaraat loolu moo tax jigéen war a valoriser boppam. bu baax a baax mais ki jël sa ndaw ni muy comporté woo ak yow nga am sens mu takk la bokk na ki nga xam ne fekku fi sa ndaw carrément ndax ki jël sa ndaw sax moom bu xuloo ak yow ñu la nangamtaan bi ngeen ko eh yaa ko jëlewul ca man. fa nga ma jaar ba jël ko ca man yow xam nga man xam naa su boobaa wax ci du gudd ndax xam na moo ko jël ci yow xanaa xamoon ni góor tëdd naag lu mat 10 jigéen kenn ki mu jël xale kenn ki mu fekk mu nekk xale dong lay takk. barke Serigne Bamba may ma ma ko nag tiire lii dama ni la góor dina ànd ak dix jigéen yow am ku ci nekk fekk na la ñu jaar sa kaw muy doxaan di bële fa di dem ndax jeunesse lay doon nga toll ci di ko def nga fëlexe ñëpp dem ci ki nga xamante moom nga fekk xale bu ndaw nga njëkk ci moom bu la tànnale dix jigéen yëpp ak moom moom ngay jël. lu waral loolu fii dañoo dof ñu xam ki téye boppam ki téyewul boppam boo nangoo ñu këll këllee la ba mu neex bu ñu bëggee takk dañuy dem takk ku dara jugut ci moom wala xale bu toog. waaye bu dee ci mbirum caaxaan bi lan la ciy fekk si je t'aime beaucoup nga naa leen moi aussi di jooy di la def seen bopp bi di la lëre di la nax nga tëdd fi nga tëdd ni seen tam defe ne yaa rey gaynde ko jox leen lépp suñ demee ba pare ci yow keneen ku ndaw kee toog garde boppam toog ci wetu ndeyam demul dikkut kooku lay attaqué mais maman léegi yaa ngi ne euh, xale góor yi bu ñu jëlee sa ndaw ba pare takk la dañu préféré dem lune de mais du ñëpp am na góor ñoo xamante ne même buñ musul xam noo mel ñoom dañuy préféré ànd ak yow dem lune de miel daf leen di gënal ñu tëddee ci kër waaw lim demee boobu bu demee ba ñoo nañu andi mm. xale soo ko takkee ba koo setal te nga yóbbu sa jabar lim demeel nga xam ne moom xale la yow yaa njëkk ci moom ñëwal wax ak yaayam jëlee ay sërëm ak yooyu andi dem naa ba ñëw kontaan naa ci moom moo tax bala mañ say géwali moom di topp laa bant di ko dund parce que ñun su ko yóbbu suñu doom boo ñëwee dañu ko andil nag ndax yaay ma nga ca kër ga ay noonam te ku jànq ci koñ am nga fu ñu la sopp am nga fa ñu la bëggul am nga fa ay noon am nga fa ay kon nag lu mel noonu su amee yaa ngi dégg boo yóbboo doomi jàmbur ba ñëw tegal ko ndeyam ni ko lii kat laa fa fekk yaa booy kontaan naa sa dooma ngi maa ko njege naa lii sama xol sedd na maa njëkk ci moom waaye del doomi jàmbur ànd moom naa ngi faaw lu la fa tuumaal nag yow xale bu jigéen ba ko nangu parce que soo gëmee sa bopp te wóolu ko andi sa sër yaa sa yaay am nga famille na ñëw sa famille xool sànq yaa ngi wax ci naan euh, xale yu góor yi ne duñ la suturaal am na si ñoo xamante ne dégg naa ay jamono bu ñu bu ñu la jëlee fekk amoon dañuy préféré ñu dagg ci seen yaram ñoom ko góor gi daal la koy suturaale est-ce que loolu jamono jooju ak jamono ji yaakaar nga ni nga ni nga ni nga ni xale góor bu ñu la jëloon jamono ñu njëkk ja dañuy préféré dagg seen yaram mhm. daal ne remplacé ko ak ndaw bi comme mairie bu ñu ñëwee dañu fekk góor ki dagg yaramam deret jooju la ñuy yaakaar ne mooy ndaw bi sutura amoon te est-ce que am ba tey est-ce nga ni góoru tey war nañoo mën a dagg seen yaram nag seen jabar yi non non bareetul nag mhm. bareetut ndax ndaw na mu diise woon ba mu jaral góor di dagg loxoom di ko wone pour setal jabaram daggatuñ ko foofu non non valeur bi mu amoon bu njëkk ba muy jaral góor di dagg yaramam taxaw jël ay engagement pour defendre jabaram nañ ko gëmee woon ba mu leen di toll foofu bareetu ci jamono jii ndax ñu ko ci gëmut ñoo ëpp man la léegi laay live fii nga mhm. dégg lu góor ñi di wax mu leer na ñii tey ji bu ñu bu ñu li kàddu bi ñu téye nii buñ ci téye mën nañ cee na xale yu jigéen ñi bari ndaw taxul ma takk la lu ma fekk ci yow baax na dëgg la taxul ma takk ko waaye bokk na ci li nga xam te boo ko fekkoon moo la gënal te góor gu sañoon nag ka na ne kii moom amul ndaw jeeg la am na doom sëy na ba taas am na doom mais ki nga yaakaar jànq te du jànq góor gu mu dal ñàkk pexe tax nga di ko téye waaye gënalu la dañ waxante dëgg ay nit lañ dañuy xalaat kon nga yaakaar ne amatul benn góor ah an góor ñaa ngi am sutura góor njëkk yii yu mujj yi génn nii barki rasulullah ñoo sutura ci góor njëkk yooyu ñoo gën a mën a muñ affaire boobu ko góori yi yii. bu ndaw génération bi ñoo ëpp maanaam ñoo gën a mën a tolloore rool ko góori njëkk yi góori njëkk yi du ñu defoon ci yow xaalis ba jël la toloo xaalis ndax jamono du ci kër yi la ñuy tëddee sa bàjjan toog say mbokk toog ba nga jël sa jabar suñu génnee gisuñu dara dañuy génn yow seen kanam dong ngay xool xam ni kontaanoo seen kanam gi dong ngay xool xam ni yow daloo ci bu ko defee ne tarkaar nga gis muy fuuñ fuuñ ak waaxoo ko dem ak ñëw ñii di ñor di fi say bàjjan naa la lu xew ak nangam am na ci góor ñoo xam ne dañoo fekk fi ngay déewante ak say bàjjan nañu yóbbu eh, def na li ngeen di def kii mooy loolu démb def naa ci ñaar wala def naa ci ñett te damaa yegg ba jeex <laughs> ci man ah. coono lay dakk mais di tasaaroo ku ne dem sa yoon bët boobu na moom la lay teg ci koñ bi ba ilaa yu mu din du deñ dootu ñu la ko wax na nga di ko dégg waaye moytu la histoire ci koñ bi wala moytu la coow ci koñ bi ndax Mbodia dina ko xam dee ko keneen keneen dee ko keneen ci koñ boobu noonu moytu faa coow ndax koo ci njëkk a waxal moom la lay njëkk a kàddu moom la lay njëkk a wax kon góor yi tey ñoo ci ëpp ngor góor yi njëkk yi mënuñu ko woon tollooree parce que ñoom daan la daan doxaan te duñu xam sa couleur slip nu mel tey boo doxaan xale bu jigéen raayoo ko fóonoo ko ndam booy weenam fulante woo ak moom jur góotoo ko maroo ab dënnam yaa ngi dégg demoo ca loos wa ubbi wooy tànk eh, boo da nga naan kii xale bu ndaw la kat ndax li ñuy dund ak man yëpp pour yàq nit du yeggu faak man kon kii su ma demee xale bu ndaw laa koy fekk boo ñëwee fekkee ko xale bu ndaw mooy andi dangaa bi moo tax góor ñoom daaw ñu ko mën a muñ ndax distance lay ngoroo boo ñëwee toog guy nga toog Dakar ga amuñu ak yow benn soxla raay ñu defuñu dara kooku nag boo ñëwee ci néeg bi fekkoo ci moom ndaw day miti ci yow bokku da ñi nga xamante ni raay nañ la fu ne ànd ak yow géej gu ne xëppante yow ndox mu ne fanaan yoo yow bu ne kooku boo fekkul ci moom ndaw mën nga ko tolérant ñu ray kenn